salaamaaleykum mbokki internet Medina TV HD nuyu nañ leen di leen dalal seen émission parcours tey nag ñu fas ne dalal ndaanaan lu mag ci wàllu football ñu koy woowee Pape Siré Dia ñu ngi fii si HLM Grand Yoff seet si Pape Siré Dia fas ne waxtaan ak moom si jaar-jaaram carrière donc ngeen ànd ak ñun ñu dugg ci biir xool Pape Siré Dia waxtaan ak moom. في أنغولا سيريديا سيريديا لصالح فريق الرجاء البيضاوي محاولة التسديد وهدف هدف بطريقة جميلة وذكية سيريديان سيريديا الذي يفعلها حيث سجل هدف التعادل في الدوري المغربي أمام فريق Avec kenn duma yàkkal duma nangu ku yàkkal kenn duma yàkkal duma nangu ku yàkkal xale laa ñeme risque bari fit dama neex a faral champion champion luy naaw neex a sànni dama di champion dëkkee daan loolu champion kuy jàpp too bàyyi koo champion kuy dëkkee daan kooku du champion nga ne ku dul mësa waa Sebe ñu ngi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp. di wax ne rek euh, di rafetlu si ses bi ngeen ma ses waa Medina TV. waaw di si kontaan trop. parce que lii suñu télé la. donc moo comme ni ma la ko waxee sànq bi ñuy dugg rek tey ñu ngi fii nii Kër Siré Dia di ancien international sénégalais de football nekk euh, coach Jaraaf. Euh, léegi ñu fas ne waxtaan ak moom ci émission parcours ne ñëw ak moom si début carrière am ak jaar-jaar bi. Euh, Jaraaf équipe nationale ak club yi nga xam ne jot na fa football à travers sa carrière donc Sir dañ lay bàyyi rek nga dalal ñu. waaw excellent excellent fii seen kër la. def naa ne képp kuy dox si waxu Medina rek. def naa ne fii sa kër wala la war a doon parce que Medina moo tax ñun ñi xam ñu. <laughs> waaw te yéenay télé Medina def naa ne ñun rek lu ñu war a def yëpp. mbokk internet Medina TV HD ñu ngi leen di dalal seen émission parcours comme ni ma leen ko waxee sànq bi ñu dugg tey ñu ngi fii nii Grand Yoff seet si woon un ancien international sénégalais Pape Siré Dia comme ni ñu koy waxee d' si présentation bi Siré Dia nu ñu lay nuyu. maa leen di fay yéen ñëpp. Mhm. di leen ziar. waaw di wax ne rek di am kontaan nga si ñëw bi nga ñëw seet si ma. Mhm. waaw di wax ne waa Medina TV. Euh, yàlla na télé bi gën a jëm si kanam. Mhm. parce que lii dafa dafa rafet. Mhm. dafa rafet tey ku dëkk Medina tey ñuy wax ne télé Medina tamit ñëw na seet si ko def naa ne lii ndam la rek. Mhm. waaw. donc comme ni ñu la ko waxee rek dina ñëw ak moom ci wàllu carrière am parce que ku xam Siré Dia xam ne ndaanaan ci wàllu football ndax dinañ ñëw moom ci wàllu carrière ak moom ci ak jaraaf équipe nationale. ak club yi nga xam ne jot na ko jot na fa jot na fa football donc Siré Dia ñu ñëw d' abord li ma lay njëkk a laaj mooy d' abord Pape Siré Dia fan la juddoo ak euh, fan la defee enfance am. waaw question bi def naa dinaa si sawar a tontu parce que tey ku ne Pape Siré Dia fu mu juddoo def naa ne Pape Siré Dia dinaa la juddoo. di vingt angle 23 foo ndoo foofu. waaw def naa ne lépp lu ma lu ma def rek dinaa laa ko laa ko defee fa la commencé waaw parce que bu ñuy wax nit dañuy wax base bi te sama base Médina la rue 22 angle 23 laa juddoo Santhiaba waaw foofu laa juddoo waaw. donc euh, ban enfance la Pape Siré Dia amoon est-ce que Siré Dia daan na def comme xale yi foo dem géej xam nga wala dem fore ay mbalitu tubaab comme ni ñu ko doon defee au temps. fu baleek yooyu ànd ak moroom yi est-ce que expliquer ñu un peu sa enfance. waaw sama enfance defe naa ne tey ñu bëri ñu bëri fekkee nañ ko muy Médina tey ba tey gars yi dañ koy wax parce que suñu enfance Médina defe naa ne lépp loo xam ne rek suñu mag yi jaaroon nañ si ñun si lu baax ñu ngi ko doon jéem a roy si ñoom mooy que képp ku ne xale rek def naa ne xale dañuy wax ne xamul dara parce que tey bañ nekk xale lu ne dugg nañ ci lu ne jaar nañ ci comme ni ñu ko doon waxee dañ doon for ay feeraay di dem di ko jaay di ko di dem fu ne waaw di dem fu ne di dajale ay xo ay xor yooyu yëpp di ko dem jaay dem pàkk bu nekk kolobaan di kii ay pigeon affaire yooyu noonu def naa ne loolu temps en face Médina moom def naa loolu kenn du ko fàtte mhm. te ni ñu ko doon waxee rek euh, lépp xale la woon du dem mbalit tubaab di dem dakaar di ko dem xooli mhm. di dem fan ok mhm. di xool mbalit tubaab parce que souvent da nga doon dem foofu di gis ay kiiwu gâteau mhm. nga koy fort yooyu yëpp def naa ñun ñëpp jaar nañ si loolu tey def naa loolu sant yàlla la tamit parce que ku ku jaar si loolu ba am tey bëgg-bëgg tey boo xoolee tey football bu ñu bu ñu nekk nii loolu si Médina lañ ko gisee terrain Jaraaf jege woon ñu ñu nekk si di si foo ba tey yàlla def lu mu def ba dem ba ràññee ñu si football bi def naa lool lañuy sant yàlla bu baax. di wax na rek suñu liggéeyu ndey ak suñu barke baay. waaw di ñaanal sama yaay fu mu tëdd def naa ne du du duma duma du ma du du ko du ko wax. waaw mhm. di ko ñaanal parce que lépp lu ñu am rek presque moom ak sama ñoo ko def si man. Mhm. waaw. Mhm. tey jii booy fàttaliku lool sa enfance ak jaar jaar li nga expliqué sànq euh, ban sentiment ngay am. waaw damay am sentiment boo xam ne. Euh, képp ku nekk xale defe naa doo xalaat tey tey tey sama doom defe naa ne du ma bëgg mu def loolu. Mhm. parce que jaar-jaar bi la parce que lépp loo gis si àdduna dafa am loo xam ne euh, moment boobu moo am tey booy am nañu sens boo xam ne ñun. jaar nañ si mais duñu bëgg ñu jaar si tey bu ñu mënee invité pour ñu jaar si. Mhm. di dem euh, defi leneen. Mhm. pour teel a def surtout jàng bi. parce ñun tey dañ doon jàng mais. suñu jàng daaw ñu ko xalaatee comme léegi ak euh, kii bi fu mu toll nii parce que lépp lu ñu doon def rek dañ doon def ne lii nañ si jaar rek jóge foofu dem fële. Mhm. te def naa ne loolu tey bu ko fàttali ko damay ne damay sant yàlla bu baax. parce que mhm. lu mu dee xaw nañ jàng tuuti. Mhm. Euh, ak suñu métier bu ñu boo xam ne dañ dem ba ñun lii lañ bëgg muy football bi sport bi. te def naa ne avant ñu jaar si sport bi ñun Médina sens bu ñu am mooy que di nga def basket di nga def euh, athlétisme. di nga def volleyball tey euh, def football def naa ñun chance boobu la ñu amoon Médina te mm-hmm. yàlla si loolu la ñu gënoon tax moo tax sport bi souvent bu ñu si amee lu ñu siy def rek euh, yàlla daf ñuy teg yëkkati ñu si kaw. Mm-hmm. léegi Siré wax nga ko sànq yaa ngi ñëw si wàllu njàng mi euh, mën nañu xam fan nga yem. waaw jàng bi def naa ne dem naa ba premier. Mm-hmm. waaw def terminal mhm. après si laa bàyyi parce que boo xoolee dama opté woon football bi souvent dama doon daw jàng pour mhm. pour dem dem entraînement parce que mhm. munoo di entraîner ngoon gi di jàng ngoon gi mënul woon nekk mais ba sama yaay xamee ak sama pap xam ne kii football bi la gën a bëgg euh, souvent bu ñëwee école ñu convoqué ko ñu ñëw ñu ne ko ngoon gi du jàngi matin bi daal lay jàng ngoon gi du jàngi <laughs> maire bi paa bi gis ne man si fool laa gën a kii si moo tax ñu gën ma si jàppale nag mhm. après paa bi doon ma jëndal ay maillot di ma jëndal ay bal mhm. di ma suivre nag mhm. parce que sama temps cadet junior maax Henri Camara sama papa daf ñu doon suivre chaque match da doon ñëw di wax bii boo dugal am na 2000 bii du dugal am na 1000 def naa loolu si ñu ma njëkk a motiver loolu sama papa si la bokk ndax ay grand yoo xam ne tamit mënu ma leen fàtte muy ñoom Ngaala Dem muy ñoom euh, Lamine Ndiaye bu Rue 15. Mhm. ñooñu ñëpp ñoom Lamine Taaw bu Sanca ba ñooñu ñëpp mun ma leen fàtte parce que sama enfance dañ si joué. parce que mhm. dañ ma doon euh, motiver. Mhm. souvent su may dañ may wax boo dugalee boo ñëwee naa la jox lii boo ñëwee naa la jox lii. naan loolu gën a tax ma gën a bëgg football bi loolu si la bokk. est-ce que mën nañu xam euh, fan nga defee sa début carrière euh, ban école de football nga njëkk a jaar pour commencer sa carrière. waaw sama début football école football defe naa ne ñëpp xam nañ ko. xëy na dama dellu si Mhm. parce que tey ku ne Sira Dia xam ma euh, fan la commencé école football mooy Alim Diop ak mhm. Dame Diop. Mhm. waaw def naa ñun ñëpp fa lañ jaar ñu ñoom pro yi ngay nii dañu nekk te ñu bëgg nekk maire yi HLM Grand Yoff bi. ñoom Youssou Daawa entraîneur naa ne ñun ñëpp fa lañ jaar ñun ñëpp fa lañ jaar. muy euh, Alim Diop ak daam Diop. waaw jaar naa si ñoom jaar naa si Aliou Bargas. Aliou bu nekk Jekko école football Jekko bi. def naa ne sama début xale. fa laa jaar. après soog dem si Pa As Diak. Mhm. parce que Pa As Diak def naa ne képp ku nekk jaraaf rek moom moo la formé. Mhm. waaw ñun ñëpp moo ñu formé te man sama carrière def naa loolu moo gënoon tax ma am sens parce que si loxo yu ma jaar dafa bari. Mhm. waaw léegi est-ce que Siré euh, bi muy football à part jàng bi mu doon def amoon na beneen métier boo xam ne nii boole woon ne ko football bi. comme yi wala mécanicien ak yooyu parce que la plupart dañuy gis euh, ñu si bëri bu ñu jàngul rek am na beneen métier bu ñuy def mais aussi dañ koy boole ak football. waaw man moom mun naa wax ne comme di 23 ma dëkkoon boo xoolee menuisier moo fa am. wax mhm. menuisier métallique. Mhm. waaw tey képp ku dëkk Médina du 22 ak 23 defe naa ne boo jaaru si menuisier nga jaar si métallique. Mhm. waaw man nag euh, sama football souvent mooy ba ma ba ba ma waxee ne football bi gën a opté. ci football bi laa nekkoon. Mhm. waaw man sam problème moo doon ma xëy suba. Mhm. ndékki dem entraînement ngoon ma dem entraînement guddi. 9h mhm. dina ma fekk ma tëdd. souvent dama koy expliquer yenn jours yi. fii Sénégal. di leen wax ne man euh, sam papa rek laa doon xaar 9 euh, mu wàcc. ma dem si naa bi euh, reer rek tëdd naa nelaw. xalaat suba. parce que man dafa am loo xam ne yàlla na ko defoon si man mooy dama gëmoon football bi. te foofu ma su woon kafu ma si woon. Mhm. loolu nag laa xamoon. Mhm. loolu laa xamoon xaw ma woon leneen lu dul toog koñ ba. Mhm. petit camp dem entraînement ñëw toog. waaw loolu laa xamoon ak sama gars yi. kese. Mhm. waaw def naa ne ñëpp ñu dëkk Rue 22 Rue 23. ba Siré ba ñu déggee ni Siré muy football ñoom ñëpp euh, loolu lañ doon wax ne mhm. xamoon nañ ko parce que booy bi dafa sonal waatoon ci football bi. fii mhm. une heure sax day génn jël balam di tëb. def naa ne loolu rëccuwuma ko dem si sant bu baax parce que nit ki def naa bëgg-bëggam bu demee tey bu réussir si euh, dafa war a sant yàlla bu baax. waaw est-ce que boo gisee tey fi nga yegg si ak réussite bi nga am si sa carrière. est-ce que loolu nekkoon na lu lu lu yomb tey. non man comme ni ma koy waxee rek souvent defe naa ne football. Hmm. football dañu football dafa fiir. Hmm. football dafa fiir mooy que tey boo optee football rek defe naa lu bëri waru la. lu bëri waru la mooy que da nga war a teel tëdd da nga war a gëm entraînement. Mhm. Euh, da nga war a def ay sacrifice yu bëri. parce que mhm. tey mënoo football ba pare bëgg a def yenn yenn kii yenn àndandoo yi bëgg ko am. non mhm. c'est pas possible. parce que tey un jour am na benn booy bu ma ne mais grand yow souvent dama lay gis guddi affaire yi man ko moment bu may toll si football. defe naa ne pour nit gis ma guddi sax problème la. parce que sacrifice yooyu la laaj. parce que football lépp loo gis commencement bi la. base bi la mooy que moment bi ngay toll pour bëgg football. foofu ngay defee yenn sacrifice pour mun ko tàmm. Mhm. waaw ma ne ko ji nga football boo demee nag ba am li nga bëgg si football. Mhm. waaw yàlla defal la si lépp lu nga bëgg bu la neexee nag après bu ngay génn ñi ñi gis la. Mhm. mais képp koo gis mu commencé football. Euh, am si benn carrière euh, daf ko gëmoon commencement bi ba ba yàlla def lu muy def muy soog a wanewu nit ñi sax di xam ne kii euh, muy génn muy dem fii ñu dem fële. léegi Siré tey boo gisee réussite bi nga am sa carrière ak fi nga yëg si tey est-ce que doonoon na lu yomb. ah non loolu yombul. Mhm. tey boo xoolee football bi léegi fu mu fu mu toll. Mhm. mooy que dafa gën a avancé football bi léegi lu mu gën a laaj. mooy que sacrifice yu bari. Mhm. parce que tey boo ne opté ne da nga bëgg nekk footballeur foog nga def ay sacrifice yoo xam ne. parce que football bi lu mu laaj léegi mooy foog nga athlétique foog ngay daw foog ngay foog foog nga am doole def naa ne. léegi football bi la gars yi gën a gis par rapport bu njëkk ba parce que tey boo xoolee télévision yi muy internet yi muy tey tey lépp lu nit def rek euh, dañ koy gis. Mm-hmm. waaw moo tax léegi football bi léegi mu kenn mëntu kenn si nax mm-hmm. tey jour loo mënti def gars yi nañ xam ne kii tey aay techniquement wala tactiquement baax na def naa ne loolu moo tax ñun booy foofu la leen gënoon ëppee sens parce que ñun sacrifice yi amoon yu bari amatul woon. daaw ñu gis ñeen yenn yenn yu bari te téléphones yi daaw ñu woon am yenn communication yi mhm. daaw ñu euh, bouger boîte yi yu bëri daawul woon am mais léegi la affaire bi gën a am mhm. te si la seytaane gën a gaaw pour nga dugg nekk benn côté mhm. te def naa ne euh, souvent du ñu du ñu taay di di wax si booy yi di leen gën a euh, jox xel pour ñu pour ñu gën a opter football parce que football bi dafa gaaw léegi tey boo xoolee yenn joueurs rek ak tey fu ñu toll. Mhm. tey boo jëlee exemple tey si Bamba Dieng boo xam ne daaw fi la joué championnat ren muy nii di toj Marseille. Mhm. daf ne tey képp ku bëgg football rek war nga mun a def sacrifice yooyu pour mun a dem foofu. Mhm. te léegi ñu ñëw ci wàllu nawetaan bi ban ASC nga defee sa début carrière nawetaan ak ban match nga njëkk a waaw sama nawetaan defe naa ne man lu ma génne ren bariwul. Hmm. lu ma génne bariwul def naa ne cadet jekkonoor laa ko joué. Hmm. def naa ne boo ne jekko jekkonoor mooy doomu yaay Cissé léegi jàppoo la ñuy wax. jàppoo waaw parce que ñun ñu yoroon euh, jaraaf euh, muy Jules euh, moom Paa As moo newoon ci ginnaaw Paa As te defe naa ne képp ku doon joué ay minime cadet si moom ngay moom moo lay yor. moom moo ñu loon tax ñuy jouer ay Diekonor parce que moom foofu la dëkkoon mais à part loolu benn année laa fa jouer à part loolu euh, jouer waatuma cadet après dama dem jouer championnat parce que man dama gëmoon ne dama war a dem jouer championnat pour dem parce que dafa am loo xam ne sama rêve la woon. Mhm. mooy football bi si laa mën a terale sama yaay. Mhm. def naa ne loolu moo doon sama rêve. Mhm. moom mooy jouer junior jaraaf parce que booy jouer junior jaraaf bi nga mën a jouer senior. sama premier match ñu nax euh, Dames la. Dames waaw ñu nax Dames la stade Iba Mar Diop. Mhm. waaw fekk ma nekk junior ñu yëgal ñuy wax booy bi booy kan la affaire noonu ma ñëw mhm. def match boo xam ne ñëpp commencé coow. Mhm. waaw si tournoi la maire bi la woon sax si lañu daje kusum final. ñu gagné ñu par série. def naa ne man kese maa dugaloon sax si waa Sancho yi. coupe bu ñu njëkk gañee tamit def naa lool la. waaw def naa loolu la si loolu lañ ko gañee mooy coupe maire bi. Mhm. waaw def naa ne foofu daal laa commencé sama sama sama jeu sànce ba. Mhm. waaw après ma dem jeu du championnat. waaw mhm. donc à part sànce ba ak Gounaye Cissé ngay wax noonu amul yeneen équipe yoo joué ak yan trophée nga gaña amul benn équipe bu ma joué bu dul euh, sànce ba nawetaan. ak euh, doomu yaay Cissé Kade. waaw à loolu jaraaf laa joué. ba tey nii may wax ak yow mosuma change benn équipe. mosuma joué feneen à part mooy. sama jaar-jaar ci milieu professionnel. Mhm. à part loolu ak équipe nationale. Sanjaba laa xam. ak jaraaf. léegi jaraaf ñu ñëw si jaraaf jaraaf sa intégration jaraaf nan la demee donc kan moo la njëkk gis ba ñëw ne kii kat dama la bëgg a yóbbu jaraaf Pape Siré Dia ba dugal la équipe première wala ba intégré la jaraaf. non man defe naa ne kenn intégré wu ma jaraaf. parce boo xoolee Medina laa dëkk fa laa juddoo. Mhm. Euh, mooy tournoi yi mu la noo wax tournoi école football yi doon am. Mm-hmm. defe naa ne ñëpp ku si yoroon équipe rek defe naa bu tournoi yi amee gars yi dañuy ñëw seetaan ñoom pas as ñoom la ñuy parrainer final yi. Mm-hmm. ñoom ñoo ñëw superviser te defe naa jour bu ñu gis rek après dañ lay jël yóbbu la jaraaf. Mm-hmm. te defe ne man su noonu lañ ma noonu laa demee jaraaf. noonu laa continuer du jouer jaraaf ba tey nii may wax parce que man sama petite catégorie defe naa ne gars yi dañu wax la ma raw sama moroom yi parce que. Euh, dafa doon yomb si man daal. dafa doon yomb si man su may joué pour nga gis ma dafa doon yomb. te defe naa ne loolu yëpp euh, yàlla moo koy def tamit talent la. talent boo xam ne du dañ la ko may wala dañ ko kii yàlla moo ko def si yow. ndax euh, entraînement yu ma gëmoon tamit. Mhm. entraînement yu ma gëmoon amoon naa gëm-gëm boobu. Mhm. waaw yàlla defoon na ma xawoon naa mën football xawoon naa am doole xale yooyu. Mhm. tax na tamit lu gën a tax ma ma gën a gëm ne man football waroon naa war naa si mën a gën a sori. Hmm. def naa foofu laa génnee daal si football. Hmm. Hmm. léegi yan trophée nga jël euh, ak jaraaf ak yan souvenir ñoo la fa gën a neex. Euh, trophée yi ma jël ak jaraaf def naa ne bari na def naa képp kuy football rek. trophée yi nga bëgg jël fii championnat euh, jël naa ko. waaw mooy championnat Sénégal jël naa ko coupe du Sénégal jël naa ko meilleur buteur jël naa ko meilleur joueur jël naa ko. et naa ne man maay le seul jour ku championnat Sénégal ku jël meilleur buteur quatre fois. Mhm. def naa quatre fois laa ko jël meilleur buteur ah. Sénégal. Mhm. Euh, te yi ma ko jël yëpp presque joué ma aller bi retour yi laa joué. Mhm. day fekk ma amoon contrat sama contrat jeex ma ñëw fekk si gars yi di joué championnat ma ñëw demee. def naa ne loolu tax na lu gën a tax sama tur tamit gën a jëm kanam sama tur nit ñi di di di wax lu bari. di wax ne Siré. Euh, saa yi ñëwee mooy jël meilleur buteur delluwaat saa yu ñëwee jël meilleur buteur delluwaat mais gëm-gëm la woon tamit aussi parce que tey sama contrat bu jeexee déew jéewu ma dem si yeneen équipe yu ndaw yu nekk foofu dama doon wax ne damay ñëw Sénégal jouer pour euh, euh, relancer wu waat pour demaat feneen mhm. te man gëm-gëm laa amoon mhm. waaw man personnellement su ma ñëwee Sénégal di damay entraîner entraînement bu baax damay entraîner jaraaf ba pare bu guddee ma dem si gii mhm. dama doon fay sama xaar di entraîner salle pour rek parce que tey ku bëgg dara da ngay def dara. effectivement waaw mais lépp lu ma doon def nag euh, ñu ko doon xam bariwul parce que c'est normal. parce mhm. que mooy entraîne si équipe bi. guddi ay 22 heures laa doon entraîne ba minuit ma dem ñibbi. Mhm. waaw. Mm-hmm. te loolu dafa am lu ma bëggoon tamit. Mm-hmm. parce kuy football rek war nga mën a raw sa moroom si dara. ci mm-hmm. loolu loolu ngay feeñee. waaw moo taxoon championnat bu ma ñëwee Ligier euh, yàlla doon ci def jàmm tamit ak fu ma jaar professionnel expérience bu ma am. def naa ne loolu joué na ci tamit lu bari. léegi sur le plan africain yow ak Jaraaf yan euh, yan yan compétition ngeen joué ak fan ngeen ci yem. waaw jaraaf joué naa ay compétition yu bari bon tey boo ko boo déggee ma a jël nañu jël naa championnat jaraaf jël naa coupe du Sénégal jaraaf mooy que joué ay Ligue des champions. Mhm. joué ay coupe mhm. waaw mais comme ni ma ko waxee rek euh, football bu njëkk bi léegi ak actuellement euh, am na un peu différent parce que tey boo xoolee si suñu équipe yu njëkk yi ay jaraaf ay gendarme. Mhm. ay Gorée daaw ñu woon sori si si si si si coupe CAF bi parce que amuñu woon ambition boobu. Mm-hmm. parce que pour am ambition boobu defe naa ne dafa doon laaj ay moyens yoo xam ne te def naa moment yooyu euh, équipe fii Sénégal amuñu woon moyens yooyu boo mm-hmm. xoolee. ay Imba mm-hmm. ay Raja ay yenn équipe yi rek ñoo doon jël kii ñoo doon sori te def naa ne léegi muy commencé rek boo xoolee léegi Sénégal. Euh, suñu équipe yi ñuy sori si affaire yi boo mm-hmm. xoolee daaw jaraaf ak tëngeeg li ñu def rek exploit bu ñu def def ah na gars yi mm-hmm. euh, suñu président yi surtout comme ni ma koy waxee euh, Cheikh Ahmed Tidiane Seck def mm-hmm. naa ne moom tey jaraaf boo xoolee ni mu ko changé war nga xam ne am nañu ambition gis nga tey dañuy sant yàlla suñu terrain bi defar nañ ko ñuy entraîné foofu te ça fait des années gars yaa ngi jooy si loolu moom ñëw na de nànk-nànk mu ngi koy mu muy muy defar jaraaf ak ak ñu ñu ñu ñu mu àndal parce que tey jaraaf ñun ñëpp la comme ni ñu koy waxee rek jaraaf ñun ñëpp ko bokk. Mm-hmm. Euh, dañuy xool ñu jaraaf di demee kanam rek ñu ñu koy def. Mm-hmm. moo tax man a football bi léegi euh, trophée yi def naa ne comme man léegi arrêté naa. def mm-hmm. naa ne comme léegi maa ngi si milieu bi. waaw daaw dem nañu ba quart de finale coupe CAF. def naa ne ñëpp gis nañ ko. waaw di ñaan yàlla rek tey ñu xel bu ñu am ñu transmettre ko booy. booy mën a dem ñun lu ñu bëggoon. waaw parce que tey pour génn si poule yi yooyu lañ bëggoon mais tey daaw jaraaf def na ko te nga FC def na ko. Mhm. te def naa loolu. Mhm. Euh, ak année yi di gën a dem rek gars yi di gën a am ambition di xam ne compétition bi lii lii moo tax lii nga war a def pour mun a egg foofu te def naa gars yi léegi ñu ngi si tàng yooyu. Mhm. Euh, mbokki internet Medina TV HD ba léegi ñu ngi seen émission parcours comme ni ma leen koy waxee woon sànq rek yaakaar naa ne waxtaan wi lu bëri feeñ na si. ñu ngi koy seqal Pape Siré Dia de euh, ancien international sénégalais jaar fu bëri dam am carrière bu riche nekkoon aussi joueur jaraaf mais ñu relancé waat côté boobu noonu mooy mbiru jaraaf bi tey noo doon dundee match jaraaf ak ñoom Jeanne ak euh, euh, yan souvenir nga ci moo la ci gën a neex. waaw jaraaf ja defe naa ne souvenir ma si am mooy que préparation bi. parce que mhm. tey jaraaf ja boo ko déggoon rek. Mhm. jour bu bees. Mhm. doo doo nelaw parce que. Mhm. supporters yi Jaraaf Jaraaf lañ gën a gëm. Mhm. si lañ lay gëm si lañ lay bañ gëm. parce que mhm. match yooyu ñoom duñ ko fooye. waaw mooy match derby la te defe naa c'est partout dans le monde. loolu moom match derby yi amul benn supporter bu koy fooye parce que ay match nawle la. nawle parce que ñun Jaraaf ba ñuy joué ba ñuy judd di ñëw bay bay egg foofu yàlla def na suñu suñu mag yi war nañu yoon boobu. moo taxoon ñuy wax euh, Jaraaf souvent. ku fa jógee def minime cadet. boo mhm. ñëwee da ngay xam culture bi. Mhm. waaw te ñun dañ teel a xam culture bi Jaraaf. parce que maintenant mhm. lañu dëkk tamit parce que suñuy grand frère suñuy nijaay yooyu yëpp dañu doon gis ni euh, ñu doon vivre Jaraaf. di xool euh, nan la ñuy def pour. Euh, jaraaf toujours di di gagné si match yu mag yi. parce que yooyu mooy match bu nawle. parce que jour dañu am dañ tendance amoon benn entraîneur muy Mbaye Mbengue souvent danoo wax ne. nit ki si si match yi nga koy xamee mooy match nawle yi. Mm-hmm. waaw jour dëgg si match nawle yi nga ko xamee bës bës bës match bës yi. waaw da ngay mën bés. Mm-hmm. te man naa match yooyu souvent si laa doon dugal nag match yooyu dama doon dugal. Mm-hmm. parce que dama doon xam ne match yi euh, boo si dugalee ñëpp lay gis ñëpp lay dégg ñëpp lay coow. te def naa loolu luy tax. Euh, nit ki di gën a avancé si la bopp. Mhm. moo taxoon euh, man match derby bi yëpp dama si dama ko doon préparé. Mhm. dama ko doon préparé bu baax a baax a baax a baax pour rek euh, dugal si wala dugal ñu gagné tamit aussi parce que équipe bu gagné. si mhm. lay si lay victoire bi gën a neex. léegi ñu ñëw sa carrière un peu professionnelle ba maanaam vers l' tey sa link ak club bi nga njëkk a signé muy ban club. waaw man defe naa ne ba ma jógee Jaraaf. parce que junior boo déggee tey ñuy wax si ñuy joué ba léegi championnat Sénégal parce que man junior lañ ma intégré senior avant may mat senior. Mhm. Euh, première année bu ma joué senior si laa dem Portugal. Portugal waaw benn équipe euh, deuxième division Trofense. Mhm. Mhm. si laa dem foofu joué fa six mois. ba mu joué après si laa ñëwaat. parce que contrat bi moment boobu loolu la woon décembre la laa fa dem eggali saison bi ba juin. Mhm. juillet bi noonu après si la ñibbi si war. Mhm. ñu waroon xool euh, contrat ñu ngi koy après waa Jaraaf fi na pour ma mhm. parce que moment boobu amoon na waa Suisse waroon nañ fi ñëw. benn équipe Neuchâtel waroon nañ fi ñëw d'ailleurs si la Henri dem ak Pape Bouba. waaw si le moment boobu lañ dem. après man juste nag euh, ñu sélectionné ma équipe Sénégal. parce que Amsata ak Peters bi ñu demoon Arabie Saoudite joué benn match amical bañ demee joué benn match amical après si la joué foofu dugg deuxième mi ba ma duggee deuxième mi si la ma ay naat gis. Mhm. agent yi ne foofu si lañ ma contacter gis Maasu Ayanda parce que Maasu moo amoon muy Arabie Saoudite di joué foofu. Mhm. Mhm. comme Maasu moo déggoon naat ñu woo Maasu wax ak moom. Maasu woo ma expliqué ma ne ko de toute façon man maa ngi ñibbi ba ñu nag euh, après. si la contact bi commencé. Mhm. mais man sama sama sama kii xalaatuma woon sax jouer si naar yi parce que man lépp lu ma doon kii. Mhm. Euh, pour jouer woon en Europe la. Mhm. mooy si tubaab yi. mais comme yàlla foofu la ko jaarale tamit euh, ma dem Koweït. si laa dem Koweït jouer fa 4 ans. ba ma jouer 4 ans si laa ñëw euh, Sénégal. jouer waat championnat mooy ma ñëw fekk gars yi commencé. ma ñëw dabe. jouer 12 matchs. dugal 18 bi. jël meilleur buteur encore mhm. ba ma joué année boobu après laa dem Turquie. Mhm. ba ma demee ma joué waat fa 4 ans. Mhm. ñëwaat. ba ma ñëwaatee tamit ñëwaat fekk gars yi ma dabe. dugal 16 euh, bi. Euh, jëlaat meilleur buteur. waaw demaat nag. ba ma demaatee Maroc. joué fa 3 ans et demi presque 4 ans tamit. ma ñëwaat. ba mu ñëwaatee tamit jëlaat meilleur buteur. parce que yàlla noonu la ko doon jaaree souvent gars ne championnat Sénégal Siré moom day dem jeu ji ba doyal ñëw fii dabee jël meilleur buteur. <laughs> mais defe naa ne loolu tamit euh, du woon du woon du woon lu yomb parce que amoon naa expérience bi jeu jot naa jeu fii Sénégal soog a dem. Mm-hmm. yooyu yëpp ba pare amoon naa gëm-gëm bi tamit. Mm-hmm. waaw ak yàlla tamit euh, lépp lu am rek yàlla moo koy def. Mm-hmm. di sant yàlla bu baax si loolu. waaw si laa defee nag euh, carrière boobu si la yi. jaa demaate ba ma jëlaatee meilleur buteur nag di ba année bu may bàyyi maa jël meilleur buteur. si mhm. laay dem Malaisie nag. Mhm. ba ma demee Malaisie joué euh, waat benn année si laa ñëw. soo ko joué championnat du commencé di nekk entraîneur coach. Mhm. waaw di nekk joueur coach. di def noonu après si la raccroché nii. depuis quatre ans maa si banque jaraaf bi. di di jàng nag. waaw di jàng pour rek euh, nekk entraîneur pour mun a jëmale jaraaf. kanam tamit aussi parce que lépp lu ma amoon ci ci football bi ci xel bi maa ngi koy jéem a transmettre. mooy fi nekk actuellement pour rek euh, suñu équipe bi jëm kanam. Mhm. mais pourquoi à chaque instant ñu doon def si rajo di dem di ñëw après deux ans wala trois ans de contrat wala bu demee ba saison bi jeex mu ñëwaat encore euh, Sénégal fii si championnat local bi. lu waraloon loolu lu tax après mu ñu woon am ko mënoo woon am contrat bu dëgër boo xam ne dina la permettre. nga toog benn cinq ans wala 6 ans boo xam ne boo fa jógee à part vacance da ngay demaat ci beneen équipe pour que. loolu non loolu mën naa wax ne benn moment su problème agent la woon. parce que hmm. man aw moon benn euh, agent. boo hmm. xam ne dafa doon suivre samay samay samay contrat parce que man sama contrat depuis ba ma jógee Koweït sama contrat yi maa doon discuter. Hmm. par à part que ku may contacter te ñooñu woon ay agent yoo xam ne. dañuy nekk sa continuité pour signer pour xool fa ngay dem rek la woon ngeen discuter après boo amee contrat ñoom jël li ngay jël nga jël li ngay jël def naa loolu loolu parce que am na benn mois boo xam ne jour bu fa tolloo def naa ne am na yu bëri surtout nag boo amee euh, benn carte boo xam ne foo foo ne siré yaay dinañ la xam def naa ne lu si bëri jaru ko woon mhm. mais boo xoolee si biir wax nee naa la équipe yi ma dem yëpp bii quatre ans laa fa def bii dafa kii parce que contrat lu mu duré duré quatre ans mhm. def naa ne loolu baax na si jour mhm. dem feneen mais comme lu ma lay wax rek football bu njëkk ba ax léegi dafa am différence parce que bu njëkk ba da ngay jouer deux ans jóge fa dem feneen wala nga dem si beneen équipe bu ndaw bu nekk foofu mais man yàlla dafa defoon équipe bi ma dem yëpp équipe bu mag la waaw équipe bu ma joué bu mag la équipe bu ma joué Turquie même chose équipe bu ma joué Maroc même chose Kuwait même chose Malaisie même chose parce que doo bëgg a jóge si comme tey nga jóge Jaraaf nga dem joué benn équipe bu ndaw fii def naa loolu doo doo doo doo doo am benn visibilité boo xam ne euh, sa sa sa kii lay wàcc sa pourcentage lay wàcc. Mhm. te def naa ne équipe yi ma nekkoon Maroc. Mhm. ba mu fay jógee équipe yu bëri topp nañ ma foofu mais bëgguma woon jouer foofu parce que Raja mooy équipe bu mag bi foofu ak wi daal. Mhm. te def naa ne bu ma demee ay Maas wala ma dem ay Kenitra def naa ne loolu. Euh, du du nekk lu gën su man moo tax souvent damay ñëw di def tremplin moo tax euh, ma joué ay dëkk yu bari. waaw te loolu def naa ñu ciy sant yàlla bu baax. parce que tey boo ñëwaatee Sénégal defaat leneen ba yàlla def nga dem rek loolu. lu baax la lu baax la ak euh, ndimbal suñu borom. waaw <laughs> léegi ban équipe nga doon joué Turquie est-ce que équipe bi nga doon joué mos nga football Ligue des champions. waaw euh, équipe bi ma joué Turquie Rize Sport laa doon joué Turquie Rize Sport def naa euh, dégg ngeen ko Rize mhm. Sport. équipe boo première division la mhm. parce que tey man mën naa wax ne Sénégalais yi njëkk a joué Turquie. première mhm. division man ci laa bokk. waaw euh, à part avant après si la ñoom lu Niaño ñoom Moussa Sow ñëw. Mhm. mais à part loolu man euh, ñu njëkk joué foofu la équipe bu ma nekkoon nag def naa ne année avant année boobu ma fay ñëw mosu na ko joué. Mhm. Euh, il faut pas Ligue des champions il faut joué na ko. Mhm. ba année bu may joué foofu sama première année noonu lañ ko joué ba dernier match ñu perte match bi. parce que buñ kii woon dañuy jël troisième te mois boobu équipe trois yi ñooy dem. ñooy dem Ligue des dem ñuy dem mais malheureusement nekkul woon mais. Euh, rëccuwuma ko tamit parce que nekkoon naa fa meilleur buteur suñu suñu club. Mhm. suñu club dugal naa fa treize bi mooy comme lu may wax rek moment boobu fekkoon maa demoon na nii kon équipe nationale def naa ne duñ jël te jëluñu ma. Mhm. mais comme ni mu ko waxee rek. Mhm. football bi léegi le temps muy dem le temps muy gën a avancé le temps ñun di gën a gis euh, joueurs yi. waaw moo tax ma ne ñun suñu sens yàlla am na foo xam ne may nañu fa. am na foo xam ne mayuñu fa. léegi comme booy ñoo si toll. comme li may wax rek. lépp lu ñu mën a jàppale booy ñu jàppale leen. comme suñu football c'est le Sénégal. waaw tey jour bu fi toj wala dem feneen du toj rek def naa pour Sénégal la. Euh, loolu la ñu ñaan yàlla suñu suñu dëkk ñu koy gën a dégg rek waaw ñun daal ambition boobu. lañu am actuellement mun a éduquer yenn yenn yenn booy waaw si loolu la ñuy liggéey nii moo tax léegi ñu préfère nekk entraîneur. Mhm. mais yow si sànq si suñuy gëstu gis nañ ne pratiquement nekkul 2004 nga ñëw équipe nationale Sénégal mais bien avant loolu en en 2000 yow bokkoon nga si équipe bi nga xam ne nii euh, Peter Schnittger si jour mi yoroon si nga bokk nan la loolu demee ba ñu bëri sax xamuñu ko. waaw mooy que boo déggee moo wax loolu mooy football bu njëkk ba euh, amul woon yenn yenn yenn kii parce que Sénégal boo déggee léegi ñuy wax Sénégal Sénégal 2002 moo tax ñuy wax Sénégal Sénégal. Mhm. te ay 98. 99 mhm. euh, boobu ñuy joué équipe nationale. Mhm. ñuy joué ay éliminatoire mais daaw ñu qualifié yu su bari. boo xoolee 2000 lañu commencé qualifié. sur 2000 lañu dem Coupe d'Afrique Nigéria. Ghana bi. dem participer ko si la ñuy mooy match boobu ñu wax Nigéria. Euh, bu ñuy bal dugg si biir terrain bi gars yi di wax dañuy sàcc. mais à part loolu. équipe euh, dañu doon def participation mais souvent daaw ñu qualifié dañuy dem ay dernier moment ñu éliminé ñu. Mhm. defe naa ne loolu moo doon suñu cat bu njëkk ba moo taxoon ñun ñii moment boobu kenn xamuñu. Euh, que sur les jeunes équipe nationale depuis 98 99. xamuñu ko woon. moo tax euh, comme match 2004 bi la gars yi gën a ràññee. parce que 2002 bi si la tour Sénégal gën a jëm si kanam. Euh, moo taxoon ñu ñëpp ñu koo wax rek mu ne si les 2004 la soog a joué équipe nationale mais c' était pas ça. mooy yàgg lañu joué yàgg nañu nekk regroupement équipe nationale man ñoom Henri ñoom Pape Bouba Diop. ñun ñoom Pape Malick. ñoom Salif Keita ñoom Salif Keita ñu ñoo jëndoo ñoo defandoo yëpp Pape Ñoxor mhm. Cheikh Sidi Ba ñun ñëpp ñoo defandoo loolu Omar Diallo Xaarim Faye mhm. def naa ne kii boobu ku ko dégg rek dina xam ne depuis 98 99 ñu ngi woon si équipe mais daaw ñu woon qualifié ay Coupe d'Afrique mhm. waaw parce def naa ne amuñu woon euh, équipe boobu parce que boo xoolee moment boobu ñu nekk si dëkku naar yi presque ñun ñoo ñun la woon ñoo fa doon nekk ñoo ñoo doon ñoo qualification yi daaw ñu Europe Europe boobu Sénégal ba ñu fa woon joueur tamit mhm. aussi mhm. waaw mhm. d' léegi yow euh, ban année lañ la njëkk yaa ngi koy wax sànq année bi ñu la njëkk a convoqué équipe nationale Sénégal 98 99 euh, ban coach moo leen yoroon waaw man année bu may convoqué mooy 98 euh, boobu maa ngi ma yëgal senior jaraaf may joué si lañ ma. ah fekk yaa ngi jaraaf. waaw si laa si laa nekk jaraaf parce que man si junior jaraaf euh, lañ ma yëgal ma nekk senior. 98 mhm. euh, boobu ma lay wax si la joué championnat. Mhm. avec ñoom Lamine Sagna ñoo xam ne da leen doon rêvé ñoom Massou Ayanda. da leen doon rêvé pour di leen seetaan école Médine temps yi ngay jàng foofu. Mhm. dem ba yàlla def ngay daje ñoom di jouer def naa loolu euh, lu ndam la woon quoi ndam la woon si man. Mhm. waaw tey Malick Daaf bu nekk entraîneur U20 euh, yi tam ne ko entraîneur def naa ne avant may dem bay nekk ak moom ñi sax euh, ñu bokk nekk coach Jaraaf def naa ne moment bu muy Belgique man maa doon dem këram du fa nekk. Mhm. di fa toog di ko. ataayal parce ñun bu ñu déggoon ne professionnel mi fi Medina rek. dañ doon jug ñun ñëpp di dem di ko seeti affaire yooyu noonu. te def naa euh, ñu njëkk a joué moom ci la bokk. Mhm. naa ne yooyu yëpp euh, man moo tax ñu gënoon am amouru football. Euh, ba dem ba joué équipe nationale ba dem ba bokk ak Mali équipe nationale. def naa ne loolu si si si nekk junior ñu yégal la foofu def naa ne loolu mooy que kii ma amoon naa talent boo xam ne. loolu moo taxoon gars yi doon ma doon ma doon ma yéegal te ba mu may yéegal euh, Peter Schmigel am Amsata ñoo fa nekkoon euh, ñoo match amical euh, Arabie Saoudite si laa dem foofu depuis boobu nag après ma nekk équipe nationale parce que chaque année dañ dañuy jël équipe nationale def sélection maa ngi fa ba ba may dem Koweït mhm. waaw noonu la demee ñaata sélection nga am équipe nationale ak ñaata bii nga fam man équipe nationale euh, sélection def naa treize sélection équipe nationale. Mhm. avant avant 2004 bi. Mhm. waaw parce que mooy comme ni ma la wax rek yoo xam ne gars yi xamuñu ko woon. Mhm. Euh, treize sélection def naa ko équipe nationale euh, bii dugal naa quatre bi équipe nationale. am na ay match amical yu ma dugal contre mal yi fii affaire yooyu noonu. joué ay contre Cap Vert ay contre. Zimbabwe. mais comme ni ma lay wax rek mois boobu ak léegi am na am na différence. am na différence mais léegi. comme football bi léegi la ko gën nit ñi di gën a gëstu. Mhm. mais defe naa ne tey boo duggee si kii di nga gis. archive ne Siré waaw di nga gis ne Siré jaar na fii jaar fi fii joué na fii joué na fii. Mhm. waaw defe naa loolu moom euh, loolu du deñ sa ban bii moo la gën a marqué équipe nationale. waaw bii ma gën a marqué équipe nationale defe naa moom la ñëpp di coow. ba sama mhm. caméraman bi loolu loolu lay wax. parce que euh, bii boo xamee la bii bu important la woon tamit aussi parce que tey Sénégal fi ñuy joué ñuy wax bu. Euh, bu ko gagné du qualifié Coupe d'Afrique. Mhm. Euh, ma dugg dernière minute euh, mhm. sept minutes de la fin. sama mhm. premier bal ma dugal ko def naa ne si si ku doon joué fii Sénégal. gars doon wax dañ koy jël wala duñ ko jël. yàlla def ma dem. waaw ah, loolu def naa loolu bii boo xam ne la bii bu ma marqué la bii bu marqué ñu bari tamit aussi parce que ñi ma ko yéene woon tamit bari na. Mhm. parce que ma ko yéene woon parce que boobu maa doon meilleur buteur Sénégal. Mhm. gars yi ne kii duñ dem te duñ ko yóbbu. Mhm. te fu ñu demee ba wàññi ay professionnel dugal ma mooy gars yi amoon nañu yaakaar tamit si man. ba yàlla def loolu. moo tax bii boobu mënu ma ko fàtte. te loo xam ne lu jëmale kanam Sénégal mu dem Coupe d'Afrique la. loolu moo tax mënu ma ko fàtte te mais am na yeneen bii nag yoo xam ne. mais bii moo gën a am importance parce que suñu dëkk la Sénégal la te def naa képp ku ku ku dëkk fenn juddoo fenn muy mhm. nga sénégalais def naa tey défendre sa couleur dëkk moo ëpp solo que sa couleur club lu leer waaw tax nga di nga équipe ku mu soxla da ngay mhm. def naa ne loolu daal si bii ma gën a marqué moom si sama football sama carrière loolu si la bokk tey boo gisee fi nga jaar yëpp ak carrière bi nga def jógee équipe nationale euh, dem football yeneen club yi ba tey yàlla def nga nekkoon jaraaf ba léegi bokk ci coach yi nga xam ne ñoo nekk ci ci équipe bi tey booy fàttaliku loolu ak fi nga jaar euh, lan ngay lan ngay yëg. waaw damay ngay yëg rek comme lu may wax rek. toujours lu may wax réussir na. est na rek rek yooyu damay wax ne bu fi yamoon sax mu neex. Mhm. parce que lépp lu ma doon rêvé yàlla defal na ma ko. Mhm. mooy ñaan yàlla lu ma doon njëkk rêvé mooy lu ma la wax. Mhm. te du ma taay gis dañ mooy sama yaay. dëkk Médina rue 22 angle 23. ne lépp lu ma am lu dul jëndal sama yaay kër. jox ko ko loolu laa doon rêvé yóbbu ko màkk yóbbu sama papa màkk lool laa doon rêvé. te loolu laa njëkk def sama carrière lu ma njëkk am si sama football. sama mhm. xaalis. macha kër laa ko jënd jox ko sama yaay HLM. Mhm. muy dëkk HLM 5. Mhm. te Médina lañ juddoo mais loolu laa doon rêvé mooy jëndal sama yaay kër. jox yóbbu ko. macha nag mooy lu ñuy wax rek. sotti. ba pare am na ba pare. maire bi nekkatu fi. mais ñu sant di ko ñaanal. Mhm. mooy comme li ñuy wax rek di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana. parce que dafa joué si man lu bari. Mhm. lu mu joué si man dafa bari trop trop trop trop. mënuma toog te xalaatu ma ko mënul nekk c'est impossible. Mhm. waaw parce que ñu ma gën a jàppale loolu si la bokk. waaw di ñaan yàlla rek. Euh, yàlla motul lépp. comme tey relève mën na fa am tey sama doom muy dugg si football bi. Euh, am naa samay jarbaat yi si nekk. Mhm. yooyu yëpp mhm. waaw dañuy ñaan yàlla rek yàlla mottali lépp. Mhm. waaw yàlla mottali lépp. si coach bi ma nekk ni tamit yàlla gën ma si jàppale jàng ma si gën a jàng yàlla gën a jëm kanam. ba lu ma si bëgg ma am ko. tey noo gisee léegi jaraaf ak tolluwaayam si championnat Sénégal. waaw jaraaf tey boo gisee tolluwaay Sénégal tey boo xoolee léegi chaque année chaque deux ans ñuy dem coupe CAF. Mhm. wala ñu dem Ligue des champions mooy loolu jaraaf muy avancé tey boo xoolee mooy ni ma koy waxee rek. jaraaf tey képp ku dëkk Medina tey yaa ngi bëggee jaraaf. Mhm. yaa ngi gis euh, jaraaf muy jëm kanam ñu def ay jéego yu bari parce que léegi def naa championnat Sénégal sax jaraaf xeeb na ko léegi pour mhm. rek euh, mooy que dañu war a dem ci coupe CAF bi jéem fa def ay jéego lu deful depuis juin moo ko fi defoon léegi boo gisee léegi gaa ñuy dem dindi loolu léegi ba ba ba toll foofu def naa ne loolu euh, football lu lépp lu bëgg football lu avancé rek gaa yi ñu koy jéem léegi di ko def te def naa ne jaraaf si tànk yooyu lañ jëm boo xoolee saison yi yëpp boo xoolee jaraaf muy jëm si kanam si lépp nag si anam yëpp si anam yëpp euh, si si joueur si si si si si si entraîneur muy si si dirigeant mhm. tey boo xoolee loolu yëpp euh, jaraaf mu ngi koy mottali daal mi ngi koy mottali surtout lu ñu doon ñaan yàlla depuis ñaat ak ñu topp si di wax jaraaf na bu terrain terrain tey mhm. ñu nga yàlla def na ko sottil na ko mhm. avec sa sekk la ko sot moo ko moo ko moo moo moo ko fekkee moo ko moo ko moo ko def mhm. loolu dañ koy gën a ñaan ñaax rek di ko gën a wax rek ñu gën a yokk rek di ko ñaanal yàlla parce que tey képp kuy wax jaraaf te tuddoo sa sekk def naa ne da wax loolu neex rek parce que tey boo fu ñëwee ba léegi muy ñuy def loo xam ne kenn waxul kenn deful dara mais moom tey lu mu moom tey moom la lépp jaar si moom. Mhm. tey def naa yàlla mooy def loolu. comme ni ma ko waxee commandement bi rek. Mhm. Mhm. télé Médina bi tey yéen la. waaw noonu la àdduna noonu la dañuy ñaan yàlla rek euh, jaraaf gën a jëm kanam rek. waaw lu ñu gën a bëgg nag mooy dem Ligue des dem ba final jël ko. waaw mooy bu dee championnat fii rek euh, jël nañ ko coupe bi jël nañ ko def nañ yëpp suñu suñu ambition yëpp loolu na jëm coupe d'Afrique waaw dem coupe d'Afrique ba dem final daal. incha allah léegi lan ngay tëjee tey. waa lu may tëjee mooy kontaan rek. Hmm. kontaan si yéen si télé bi. waaw parce que télé bi def naa soo ma télé la sax man mën na neexee wax ko. parce que si laa bokk. waaw képp kuy juddoo Médina ku yaroo Médina rek def naa ne télé bi daf ko war a gën a ñaanal. pour mu gën a jëm kanam ba nekk télé yu mën ci télé yi. waaw te yàlla mën na ko. yàlla na ko yàlla def. waaw di kontaan rek. waaw si émission bi ñëw bu ngeen ñëw fii seet ma def naa ne. lu rafet la. waaw di xool sama parcours pour rek nit ñi mën ko dégg. képp ku dëkk maintenant te mu ngi ñu ci jëriñu waaw Sénégal bi yëpp jëriñu si def naa ne man tamit ma am si mbégte rek am si mbégte di leen gërëm di leen sant yoon ñëpp waaw di wax ne rek yàlla nañu yàlla defal jàmm musal ñu lépp lu fi yàlla dindi ko waaw di wax rek yàlla na yàlla lépp gërëm sama papa moo fi ne samay sœur ñoom ñëpp maa leen di gërëm waaw di wax rek yàlla na jàmm yàgg amiin waaw di gërëm sama xarit yëpp tamit képp kuy bëggee Siré maa lay maa lay gërëm waaw donc mbokk internet Médina TV HD lii la leen indiloon tey seen émission parcours ñu amoon mbégte kontaan si dalal Siré Dia ancien international sénégalais euh, jaar fu bëri ci wàllu carrière gis ngeen ko ci biir waxtaan wi yu bëri feeñ na si tey donc actuellement mu ngi jaraaf bokk ci coach yi donc aussi di ko ñaanal yàlla defal ko carrière bu bu réussir donc defal ko ci ay ndam yu bëree bëree bëri donc lii la leen indiloon tey seen émission parcours di leen jox dig daje ak beneen invité incha allah ba beneen yoon.